barke sëñ Tuubaa jëtan li man alaa xay laa ilaaha illallaah sëñ Moussa Ka wax ko ca wayu wallaay daal ni képp koo xam ne màggal nga bisub tukkeem mhm. aj nga umra nga jihaat nga am nga yoon ah waaw la sëñ Moussa Ka doole ci wax mooy ñoo takk de eh, takk seen yooyu bonde naan may booy dëwwe yam li xaare yooyu yëpp si interdit avec d'abord was kenka layen in majet mm. sëñ Tuubaa comme moom moo bu ci def ginaar mm. ba xeeb ko bu ci kenn def giléem ba naw ko xam naa yéen a juree jooju mm. tey dañu ne yéen a moo ëpp jëf ay sa kii ma doon nga tudd nga na ngeen kii may kii jàmm man dama jombeem njuume noo sant mu ne wele tubaab buy wax olof laa ilaaha illallaah nee na yow mi nekk ndaw na ngay wéy di wekk mag ñi waaye mag ñi tamit ni ñu yërëm gone buñ ko xamut yow na nga fàttaliku nañ démb yal na leen yàlla la fal cat cey àdduna màggal gii nag day fay màggal yi fi jaarul ñëpp parce que ñëpp dégg nañ ci réew mi tawat ji fi xanaa waajal safar gi xam nga man moom samay sàcc di waajal sama natt bi teg ko fii ci taabal. maam lu dul jeex talaa wuy si raw gaa ngi